papa, papa, salaamaaleykum namoon naa leen ah, namoon naa leen sama gaay yi namoon naa leen Assane Diouf Assane Diouf sama yi ñu commencé ci eh xolo ak ay fan rek weer ak ay fan ci lañuy waajal màggalu Serigne fàllu Mbacké sama xol ah sama xol tey dama bëgg ñu waxtaan mais waxtaan bi dafay bees tàq parce que bëgg naa ñu waxtaan comme ni ko ñëpp di ñaane te dara du wàcc yoon lépp ci kaw yoon bi lay tege xam nga li ñuy li ñuy commencé waxtaan bi mooy Sénégal Sénégal Sénégal gi nga xamante ni moom moo taxoon ñu commencé lépp Sénégal gi taxoon ñu commencé lépp Sénégal bi taxoon ñi nga ñi nga xam ne lépp loo xamante ni dafa bokkoon ci bëgg-bëgg wala cofeel wala wala yëkkati senegal maanaam yëkkati senegal mu nekk fi mu war a nekk moo ñu taxoon toog di jàmmaarloo moo ñu taxoon a toog di jàmmaarloo te yenn saay bu ñu demee ba mbir yi jaxasoo ba jaxasoo ba jaxasoo dafa laaj ñu toogaat ku nekk xool sa bopp ku nekk xam yaay kan ku nekk xam xam nga lan moo la taxoon a jóg dugg ci xeex bi man loolu rek laay laay xëcc ñëpp ku nekk rek xam li la taxoon a jóg dugg ci biir xeex bi après dafay dimbaliwaat ñépp ku nekk ñëwaat ci sa place ku nekk ñëwaat ci sa place bu leen fàtte ne senegal moo taxoon ñuy xeex bu leen fàtte loolu yéen Baay Faal yëpp laay waxal nag yéen Baay Faal yëpp ngeen ubbi seen nopp ngeen déglu ngeen déglu ci tekk ak teey bu kenn mer bu kenn gis sa bopp ku nekk xoolal fi nga xamante ni fa la dëgg gi nekk rek nga taxaw fa man Sénégal laa àndal mais ku nekk xoolal fi dëgg gi nekk rek nga taxaw fa ci waxtaan boobu lañuy dugg tey parce bi may commencé xeex bi ay doomu aadama yu bari dañoo jóg beddeeku ñëw ne ku nekk rek ne Assane Diouf Assane Diouf Assane nañu association Assane nañu mouvement Assane doxaleel nii Assane duggal fii Assane génnal fii Assane président sax dégg naa ko du man dong ko dégg dégg ngeen ko may leen man loolu du sama place man dama jóg pour xeexal Sénégal nañuy dégg sama làmmiñ naay dugg ci mbedd yi di génn di gis li naqari sénégalais yi ma di ko wax loolu moom ma taxoon a dugg ci xeex bi mais pas niñ koy waxee jamono jii niñ koy waxee jamono jii yéen ñëpp laay waxal nag yéen bàyyiwuma kenn tous les activistes ñëpp tout le monde ñuy woowee seen bopp activiste ak ñi nga xamante ni dañuy woowee seen bopp leneen ak ñi nga xamante ni tamit dañoo ñëw ànd ak Assane Diouf Assane Diouf Assane Diouf Assane Diouf Assane Diouf ba nit ñëpp dégg leen ba nit ñëpp dégg leen Assane Diouf laay defal lii Assane juuf laay jàppale ci lii Assane Diouf laay dimbali Assane juuf lay laa téyal lii xam nga bis bu mënee lii ma bàyyi lii dellu ci lii lépp nekk ay fen te ñun pourtant dañu jógoon ne dañuy xeex xolal li nga xamante ni moom la ñu Macky Sall digoon mooy gestion sobre et vertueuse ñu defal ko suñu bopp ñun moo taxoon ñu dugg ci combat bi mais bu fekkee ne loolu amul suñu biir est que ñun mën nañoo jubbanti Sénégal munul nekk c'est impossible barki sëñ Fallou mënul nekk pour ñu jubbanti Sénégal il faut ñu jubbanti suñu xol yi ñun suñu xol yi ba pare xam nga wàcce suñu bët yi ci kaw doomu aadama yi nit ak ni muy doxee ak ni muy demee ba pare ku nekk xam yow yaay kan parce que loolu dafa am importance ci doomu aadama doomu aadama bi day am importance pour mu xam moom mooy kan fan la jóge lan la mën ak la fan la mën a taxaw boppam ak fan lay mujjee parce que xoolal yàlla bi mu la sàkkee wàcce la ci biir suuf daf laa booleeg lépp après xoolal yow yaay nekk góor walla yow yaay nekk jigéen takk sa sër wala nga takk sa tubéy comme niñ koy defee ci jamono yi xeexal sa bopp lépp mais sama gars yi affaire yi naqari na ma trop barki sëñ Touba naqari na ma trop parce que li tax mu naqari ma nit ñi ma àndal ñu ne dañu bëgg Sénégal nit ñi ma àndal ñu ne ñoom xam nga dañuy taxawu Sénégal nit ñi ma àndal ñu taxaw ne dañuy xeex Macky sàll xam nga ci mbon gi mu yore Sénégal ak ñaaw téef yi ak noot doomu aadama yi toroxal leen ñun ñooñu bu fekkee ne ñun ñooy lekkante suñu biir est-ce que ñun mën nañoo xeex Macky Sall non c'est impossible Baye Fall munul nekk munul nekk te affaire yi xoolal daf ma duggoon depuis ma nekkee kaso xam nga ay bruit yuy ñëw bruit yuy ñëw parce que lépp laa doon yëg lépp laa doon yëg daaw ma jokk jokkoog doomu aadama yëpp mais maa ngi woon ci télé yi maa ngi woon ci presse bi maa ngi dama lépp laa doon jot maa ngi doon gisanteeg tam ñi ma war a gisanteel Baay Faal Dooméram TV Assane Diouf Yaay Faal Dooméram TV Assane Diouf ñun xëccoowuñu parce que Sénégal moo ñu ñor wutuñu ci kaw sénégalais yi parce que Sénégal moo ñu ñor wanewu wuñu tamit affaire yi du tur te yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a taxaw xama muy ay one million muy OSR muy ànd jàppale Assane Diouf paas bu mu mënti doon bu ci nekk da ngeen a taxaw seen làmmiñ seeni audio nit ñi di leen enregistré ku ci nekk taxaw ne lii Assane moo tax ñu teg ko fi bis bu lépp sottee xoolal lépp lañuy ñuy boole def ko benn Assane génn ku ci nekk mu ne la kaay ñu taxaw kaay ñu taxaw ñu booloo dëggal suñu bopp mais kenn nanguwul a dëggal boppam kenn nanguwul a dëggal boppam parce que ku nekk yaa ngi wut sa yoonu bopp loolu du defar senegal loolu du defar Sénégal ma bëgg ngeen ubbiwaat seen xol yi fi may commencer Ousseynou jaañ Ousseynou jaañ parce que xam naa la wax naa ak sa yaay am naa foo xamante ni duma fa egg ak yow duma fa egg ak yow ilaa yow mi diini alal jaraluma ko wax ju bari jaraluma ko nekk ci internet bi di xuloo ko saagante rus naa sa yaay parce que daf ma ne Assane sama doom ji moom ak magam ay seex lañu te may dund ak may dee dénk naa la ko kon xam nga lépp lu ma am rek yaay boroom jëlal OSR jëlal mais nag dama bëgg yéen ñëpp yéen ñëpp OSR monde ak OSR boo mënti créer barki Serigne Touba man ak sama sœur ma dellu siwaat François Hélène Guèye ñoo taxawoon ci yooyu yëpp mu taxaw ñun ñoo taxawoon pour mu taxaw te bi nga ciy bëgg jot bi nga ciy bëgg a jot ak sa fekk tur maanaam sa tur bu foo Assane Diagne am na jàmmaarloo yoo jàmmaarloo ak Hélène ay jàmmaarloo yu metti nga jàmmaarloo ak Hélène ay nit dugg ci wax ne noo xam nga dal ci kaw kële ñii xamal li ma ànd ak yow xam nga yee defal lool ci sa bopp te nit boo amul kóllëre lépp loo jafandu lu mu mënti doon lu mu bari bari da nga koy ñàkk barki sëñ Bamba da nga koy ñàkk parce que alalu àdduna la du dara is nothing is nothing fii senegal dañuy wax Bob Marley astafurlaa dañuy wax ay Papa Ndiouga Kébé ay Djily mbay milliardaires yi xolal Kobe Bryant bërki démb ci avion la daanu mën na jënd Djily mbay jënd Ndiouga Kébé jënd ñépp te mook doomam bu jigéen ñoo ànd daanu ci hélicoptère tey jii tey jii le 24 xam nga ci lañ koy suul ñu koy rendre hommage mais yéen ñi nga xamante ni yéen a yor page yooyu yëpp dem ci turu Assane Diouf barke sëñ fàllu yéen ñëpp jël leen ko àddiyee sëñ fàllu mais dama bëgg lenn lenn lenn xam lu tax Donald tromp neex ma ku mu mënta àndal ku ne you fire dàq nañ la parce que ay nit bu ñu mënta ànd na ku nekk jël sa yoon rek te comme yéen yéen a fecci kóllëre jël seen yoonu bopp ba pare yee non continuer leen seen yoon mais bu kenn tuddati Assane Diouf man ma ngeen may tudd man Sénégal rek moo ma ñor te xam naa ne yéen dong du ngeen Sénégal te du yéen rek laay xëy di dajeel parce que ay doomu aadama laay xëy di dajeel ci mbedd mi. ba pare dama nekk foo xamante ni damay toog di liggéey chaque jour di dajeek ay nit di wax ak ñoom xam nga ñu am benn respect boo xamante ni xam nga dafa génn ci ñoom ñëw ci man tax xam nga may gën a respecter sama réew. may gën di respecter sama réew te pour nga respecter sa réew mooy nga respecter sa kàddu ba pare nit boo respecté wul sa kàddu barke Serigne Touba doo dara boo respecté wul sa kàddu bii billaay wallaay doo dara te yéen ñëpp laay waxal bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn fàttaliku leen lan moo taxoon ñu ñëw ci xeex bi my sister Hélène fàttalikul lan moo taxoon ñu ñëw ci xeex bi fàttaliku leen lan moo tax ñu ñëwoon ci xeex bi Ousmane Tounkara booy Ousseynou Diagne xolal addiyey Serigne fàllu ci lépp li nga xamante ni xolal moo nekk ci sa bopp boobu ak ñi lay jay parce que man xolal taalibe Serigne Fallou laa billaahi lépp lu nit di am rek xolal am naa ko ba pare te xolal déglul li ma lay wax bu baax parce que Amérique laa nekkoon Amérique laa nekkoon te xam naa yoon bi ba pare te nit bu la yàlla dimbalee nga xam yoon bi xolal yee kenn dootu la jiital kenn dootu la jiital ci lenn dangay ngay jóg rek topp yoon bi dem am fulla boo ñàkkee fayda nag ñu lay jiital man kenn dootuma jiital ci àdduna ma bëggoon ngeen jël Assane Diouf làq ko ci ginnaaw ngeen jiital seen bopp te fu ngeen toog tamit di bàkku wala ngeen di wax ne paas bi maa ci def lii xolal boo paree xolal toogal nga ne jërëjëf Assane Diouf yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko yàlla may jàmm parce que bu dul woon moom lii du demee nii Hélène damay dellu siwaat damay dellu siwaat parce que délai bi mat na délai bi mat na bi ma jógee kaso ak léegi tey la am tey jii guddik tey jii ci même waxtu yi la ñu ñëw ne ma dangay ngay ñibbi le 24 février ma reetaan leen continuer di seetaan résultat élection sàcc yi fi jaar élection sàcc yi fi jaar guddi googu bi may génn kaso xolal man gis la rek moo nekkoon parce que dafa am lu ñu commencé woon Hélène dafa am lu ñu commencé woon te yow xam nga lii sa défaut man xam naa lii samay défaut dañ delluwaat ci xeex bi parce que Sénégal xoolal la taxoon ñuy xeex man bi ma koy xeex maa ngi américain lu bari fekkuma fi woon nekkuma woon biir Sénégal fàttaliku leen lool mais billahi wallahi wa taalaahi barke Muhammad loolu rek kay waat ah lépp lu taxoon nekkoon ci sama xol benn ma di ko ma di ko xeex barke mam Cheikh Fall gis naa ci million kon xeex leen pour Sénégal xeex leen pour Sénégal bu leen xeex pour man bu leen xeex pour suñuy jikkoo parce que yàlla dafa bind doomu aadama bu nekk ak jikkoom kenn mënu ci dara ñu continuer waat xeex bi parce que Sénégal dafa metti te li ñu déclenché woon bu fekkonte ne dañoo continuer ku nekk rek jël sa xoolal jël sa différence teg ko fële jël li nga xamante ni moo lay neex ak lay naqari teg ko fële teg sa bët ci Sénégal rek kon heure bi heure bi tey 24 février 2020 dañuy toog di feetewaat naan ñun ñoo xeexoon xeex bi ñun ñoo fi jële président doomeram bi fi nekkoon mais tey jii ba tey ñoo ngi dëkk doomeram bi te kenn mënu ci dara muy gën di am doole indiwaat leen seen xel yi ñu delluwaat ci loolu ñu delluwaat ci loolu mais bu fokkee ne ñun ñooy mbubboo xamal li ma la ku ci nekk di mbubboo sa morom pour am dara wala pour feeñal sa tur wala pour wanewu wala toog di wax loo xamante ni wóor na la ne wóor na la ne dara du ci dëgg yee man loolu taxul woon ma ñëw ci xeex bi taxul woon ma ñëw ci xeex bi barki sëñ Bamba moo tax ma toog tànkam lu leen man Sénégal rek Sénégal ak dooméram yi Sénégal ak doomeram yi ci biir pale bi Sénégal ak dooméram yi sàcc suñuy milliards rakku président Aline sàll Sénégal ak doomeraam yu mel ne ay Bouga Sali ay simbkat ay doomeraam yu nekkoon fii géejawaay xam nga li ma wax yor ay milliards bay yor ay faux billets Sénégal ak doomeraam yooyu Sénégal ak doomeraam yi sosal Khalifa Sall xoolal topp coow li topp coow li Sénégal googu moom laa nekk tey man Assane Diouf Sénégal googu lay xeexal xeexaluma keneen xeexaluma benn individu parce que xoolal ndamu Sénégal mooy nekk suñu ndam yow boo amee ndam wala man ma am ndam zéro zéro bu dee yow kese la xoolal yow keseeg sa ndam mais bu Sénégal amee ndam ñu ñëpp ñooy ànd tàccoondoo ñooy feccandoo ñooy reewandoo ñooy bànneexoondoo mais bànneexu benn doomu aadama ci biir dëkk boo xamante ni presque 17 ba 18 19 20 millions doomu aadama ñu ngi dund biir Sénégal yee dëkk boobu xoolal yee feete fa sa victoire yow kese du dara moo tax nañ delluwaat ci xeex bi nañ delluwaat ci xeex bi Modou gaal seen déglu naa la man sama frère nga moo tax musuma laa tontu musuma laa tontu sama frère nga barki sëñ Touba sama frère nga du ma musuma laa tontu parce que xam naa ne yàgg-yàgg xoolal suñu borom moo ñu sàkk ñun te ci dëgg la ñu sàkk moo tax boo nekkee nit xam nga sax ci dëgg xolal yàgg-yàgg dëgg gi day ñëwaat taxaw kenn mënu ci dara kenn munu ci dara man jàppaluma kenn lenn mais képp ku ci dem ba wàcc sa yoon xoolal dinaa toog wax la samay dëgg ba pare toog jàpp sama njaambur parce que kenn defaluma ci lenn comme ni ma koy waxee chaque jour parce que fii mooy réew moo xamante ni lu la nit defal xaar ko xaar ko xaar ko ah lu leen nit mënti defal rek xaar ko daf la koy defal pour dara bu loolu nekkatul rek xoolal mu jàpp boppam te nit buy def dafay def ngir yàlla man Assane Diouf noonu laay defee man damay def ngir yàlla du ma defal kenn pour nga toog di ma gërëm wala nga naan ma sàmba yaane ngaan njaay nangam nangam mënoon naa ko bi may doog a ñëw senegal maa leen gën a xam yoon bi xam naa fu ñuy dugg Médina laa juddoo rue 25 angle 18 xam naa dëkk bi xam naa dëkk bi barki sëñ Fallou kenn du ma jàngal fu ñuy dugg ak fu ñuy génn mais nañu delluwaat ci xeexu Sénégal bi nañu delluwaat topp dooméram yi suñu pétrole suñu gaz suñu pétrole ak suñu gaz nañ delluwaat ginnaaw nañ delluwaat ginnaaw te ngeen seetlu niñ leen di manipuler seetlu leen niñ leen di manipuler Karim Wade la woon ca commencement ba Karim Wade yaa ay Ndiongue ah ay ñaata doomu aadama ba ci Khalifa Sall ba ci Khalifa Sall ba ci xalifa Sall ñaata doomu aadama lañu noot ba bërki Dembo Ndiaye Assane Diouf démb Barthélemy Dias tey Pape Alé Niang képp ku fi génn wax gouvernement bu Sénégal lii dëgg gi barki sëñ Touba sénégalais yi xam la parce que li sénégalais yi di wax ci suufu ron la li moom ngay génn yow xam nga teg ko publiquement moo tax nañu continuer xeex nañ jël exemple bi fi mu toll nii ci Pape Alé pourtant Pape Alé saagawul saagawul de saagawul kenn dafa wax lii dëgg gi barke Mohammed dafa ñëw rek teg dëgg gi ci table bi comme ni ko Assane Diouf defee États-Unis ñu refoulé ko comme ni ko Khalifa Sall defee xam nga ñu tëj ko ci kaso bi comme ni ko Barthélemy defee ñu tëj ko ci kaso bi comme ni ko Guy Marius Sagna defee ñu ko ci kaso bi keneen noonu keneen noonu keneen noonu keneen noonu ba ci suñuy papaak suñuy yaay barki sëñ Touba toujours ci prison la ñuy nekk parce que ay doomeram lañ ko seqal benn gouvernement boo xamante ni ku wax rek am na lu luñ la tegal Pape Alé Niang yee bu la neexee xoolal man dama dépassé foofu sénégalais yi nekk dama ko dépassé parce que nit ku nekk da nga am sa vie privée te defe naa ne sàcculoo alalu kenn naane ko sàngara xamal li ma wax duggloo ci kër kenn ñaan fa loo jënde sàngara mais dangaa jël sa ràbb jam ko ci taatu naar bi il faut nga dégg naar bi kenn mënu ci dara mais muñ ko te xam ne ñoo ngi sa ginnaaw léegi ñu ñëw delluwaat ginnaaw ci suñu pétrole ak suñu gaz Baay suñu pétrole ak suñu gaz Aline Sall géejawaay Aline sàll géejawaay foofu li ma fa am li may wax lu am importance mooy yéen waa géejawaay géejawaay laa wax de géejawaay gi nga xamante ni moom man dama ko xam fi la samay doom juddoo fi laa dëkk ba léegi xam nga heure bu ma xëyee maa ngi gis nit ñi géejawaay boobu laay waxal déglu leen ma géejawaay géejawaay bi suñu yaay yi di xëy di gàddu ay paan paanu jën géejawaay bi suñu sœur yeeg suñu ñi ñi ngi ci gerte caaf ñii ñi ngi ci lépp bu leen fàtte ne Auchan Auchan Auchan day jaay sax gerte caaf te nit ki booy xeex dara danga koy xeex ci say wewu tànk billahi wallahi bu ngeen mayee Alioune sàll mu teg Auchan fii dootu leen jaay gerte dootu leen jaay jën dootu leen jaay amul lenn lu ngeen di jaayati loo xamante ni ci marché la jëm ginnaaw bi nga xamante ni suñu marché yi fi mu toll nii dara nekkatu fa parce que marché amatul Sénégal gi yëpp marché la Sénégal yëpp marché la Sénégal gi yëpp marché la ah. def leen ko seen xel léegi ñu jël Auchan dugal ko seen biir mu jël seeni bagage di ko emballé nu mu ko neexee xam nga di ko defaraat comme ni ngeen koy waxee seeni doom di ko tubaabeel comprendre nga li ma la <laughs> di leen ko jaay di toroxal seen yaay yi yéen jeunes yi laay wax yéen jeunes étudiants yi nga xamante ni seen yaay yi ñoo leen di daggal ay ay quittance ñoo leen di defal lépp ñoo leen di fayal ñoo leen di jox transport état bi fayu leen seeni bourse normal yéen étudiants yi nekk université dëkk géejawaay amoo daaru xam ne marché njaareem fep ci géejawaay barke Serigne Fallou bu ngeen bàyyee Aline Sall teg fi osan te teegalu leen ndeyam ah xoolal seen yaay yëpp dinañ yalwaani parce que gis ngeen buntu fuur yeeg buntu station yeeg buntu bidas doore yeeg fépp dañuy taxaw di tàllal loxo te ñooñu ñun gënuñu leen a ay yaay lañu ay yaay lañu comme yeneen yaay xeex boo koy xeex da ngay am fulla xeex boo koy xeex da nga war a am fulla xam ni koy xeexee mais du yor sa làmmiñ di wax rek di wax rek di wax rek te sénégalais yi xam nga fi mu toll nii seen lépp seen lépp ay wax la seen lépp tegul fenn lu dul ci ay wax xëy di wax rek non action non action moo tax nañ leen jubbantiwaat suñu bopp ñun ba pare balaa ñuy jubbanti Sénégal balaa ngeen di toog ci internet bi di ubbi seen làmmiñ ku nekk di wax te li ngay wax yow wóor na la ne du dëgg wóor na la ne du dëgg gëstuwuloo ko parce que teg nga sa caméra rek mu neex la xam nga nga toog xam nga yee manipuler opinion bi non non non man defewuma ko woon noonu man dama jël sama baaraam roof ko ci taatu naar bi xolal naar bi yuuxu comme ni mu yuuxoo tey pour Pape ale te kooku mooy Macky Sall du ko bàyyi duma ko bàyyi jamais man noonu laay xeexe te luñ ma dara parce que doomu aadama laa yàlla laa gëm yàlla lañu àndal moo leen sàkk moo ma sàkk xolal damay xeex ak ñoom ba ba may dee barke sëñ Bamba commencé ko yee ci li nga xamante ni moo ëpp importance lépp muy suñu pétrole ak suñu gaz bu ñu dellu bu ñu bu nangu lan moo tax ngeen di jéggi lan moo tax ngeen di jéggi affaire yi ñu leen di manipuler ngeen di jéggi ñu leen di manipuler ngeen di jéggi ñu leen di ngeen di jéggi di dem ñu leen di manipuler ngeen di jéggi lu ñëw rek xoolal ñu wutal ko benn slogan ay ànd def lii ànd comme niñ ko defee tey xam nga li ma la bërki démb ñu ñëw ne nan lañ ko tuddee sax ah xam nga frappe yee ana waa frappe frappe dégage ah et eh, Guy Marius ci kaso bi ah lijjanti leen loolu ba pare ku mënta xeexal benn nit munoo xeexal réew ku mënta xeexal benn doomu aadama munoo xeexal réew yéen waa FRAPP ok ana waa nuñ ko naka la tuddati euh, euh, ñoo lànk ñoo bañ nan la tuddoon démb nan la tuddoon démb ñoo lank ñoo bañ démb rek nan la tuddoon ku mënta xeexal benn nit benn nit benn Guy Marius Sagna boo ko mënta xeexal xolal doomeraam yi génne ko ci kaso bi xolal munoo xeexal Sénégal noppi leen ay mars oyee oyee oyee amer de nit ñi ay yaanaa maar ay opportuniste ñoo xamante ni xeexalatuñu sénégalais yi seeni poos la ñuy xeexal parce que dañu sonn ni mu demee woon nguuru Ablaye Wade gars yi di jël alal ji di leen ko sotti xam nga li ma pour ñu daaneel ab Ablaye Wade loolu amatul amatul moo tax xoolal ñu bëgg ko utiliser foofu bërki dem Ndiaye lan lañ def dem di jéem a yëkkatiwaat Ablaye Wade loolu moo leen di wan ne amatuleen importance parce que boo demee bay jëli sa maam xam nga pour mu ñëw dimbali la ci xeex mooy yow pare nga ci àdduna ci jeune ngay jëli sa maam naan ko kaay jàppale ma ci ay kurpañ kaay jàppale ma ci dox bi mooy yow amatoo njariñ tekkeetoo dara ñun ay doomu aadama lañ yàlla daf ñu bind xoolal pour ñuy xeex ba ba bañuy dee parce que xoolal mala yi ci àll yi dañuy xëy di xeex ba bañuy dee xoolal ñun noonu la ñu yàlla bindee ba pare gën ñoo yëkkati rek gën ñoo yëkkati mais ñun ak ñoom a yem mais suñu xel yi xoolal fi mu toll nii sonn nañ ba ku nekk sa bopp rek ku nekk sa bopp moo tax ñu leen di manipuler pare yeewu leen yeewu leen yéen jeunes yi nga xamante ni yéenay dem allée de centenaire allée de centenaire centenaire Ablaye Wade dafa xeexoon ba am fa ndam xoolal siège bi nekk foofu xoolal jàkkaarloog monument bi siège bi nekk fa tey jàkkaarloog Masaalikul Jinaan ok Masaalikul Jinaan ah? mu tiim ndakaaru di jumaay Serigne Touba ñu xam ne Serigne Touba ay doomu aadama ay jinneeg lépp la boole. ajjuma bu jot ñuy julli si ngeen ni amer de nit ñi ci seen marche yu ñàkk fayda yooyu bu ñu waxee ngeen naan yee marche bi réussir na marche bi c'est autorisé c'est pas autorisé parce que yow boo mënul a dox foo xamante ni waruloo faa dox sa dara autorisé wuñ ko ci réew moo xam ne fa nga dëkk kenn moomu la Macky Sall dafa moom réew mi moomul réew mi barki sëñ Bamba moomul réew mi ñu war a yeewu pour loolu xoolal xeexal suñu bopp pour am ndam ñu ñëw ci Aline Sall ñëw ci Aly Ngouille Ndiaye ak maki Sall ci suñu pétrole ak suñu gaz Petrotim ak Petro Asia Petrotim ak Petro Asia ñaari compagnie yoo xamante ni compagnie bi nga xamante ni moom la ñu wax ne moom moo jur Petrotim compagnie boobu xoolal Petrotim ci boppam moo ko mag moo ko mag ci juddu te xanaa doom du njëkk a juddu ndeyama ah? ndey jey juddu ba am at yi mu war a am dooma ah? doom du njëkk a juddu ndeyam sénégalais yi Aline Sall bu ngeen continuer di ko bàyyi muy dox ci mbedd mi mu koy neex yeneen doomu sénégalais yi nga xamante ni ay ginaar ay seenu or wala këf téléphone wala juin bi ñuy tux moo tax ñu nekk ci kaso bi ay at mooy amuleen leen fulla amu fulla wax ji rek Petro-Tim mi ngi juddu 19 janvier 2012 19 janvier 2012 Petro Asia juddu xawma le 6 mars ñu ñëw ne Petro Asia moom mooy ndeyu Petrotim bi nga xamante ni moom la Aline Sall ak Macky Sall du Aline Sall kese de ak Macky Sall magam Macky Sall Aline Sall Aly Ngouille Ndiaye ñoo kompaloo taxawal Petrotim Petro Asia ci ay fen lekk suñu six mille milliards ñu leen bàyyi ñuy dox ñu leen di bàyyi ñuy dox six mille milliards comme ni ma leen koy waxe toog fii di wax milliards milliards milliards milliards ba suba ci heure bi ay junniy junniy junniy junniy kenn waxul kenn waxul delloo si leen seen xel ci loolu nañu delloowaat suñu bopp ci li ñu taxoon di xeex xeex boo ko commencé da nga koy eggale ba am ci ndam mais lu ñëw rek ñu jéggi ko xam nga waa ji def manipulation ñu dem ci leneen lu ñëw ñu jéggi ko waa ji def manipulation ñu dem ci leneen loolu avancé lul am réew avancé lul am réew da ngay xeex ba am ndam ak lu mu mënti doon te ngeen wàcc tali bi wàcc leen tali bi <laughs> dafa am nu ñuy xeexee ah, wàcc leen tali bi man maa leen ko wax Assane Diouf parce que li ngeen di def tànqal sénégalais yi te amu leen benn ndam ana gi Mari mi ngi ci kaso bi ba léegi mi ngi ci kaso bi ba léegi te gars yi am nañ fuñ ko teg parce que bu leen fàtte ne dañ ko jugé woon jox ko sursis wu six mois sursis bu leen ko fàtte ah bàyyi leen loolu xel parce que ñoom noonu la ñuy manipuler ñëpp man bi may génn kaso lan la ñu waxoon waa ji dafa dof na dem xooli docteur na dem def lii xolal fen rek fen ci état boobu la ñu nekk ñun justice boobu la ñuy dund te justice boobu moom laay ñëw wax ak yéen sénégalais yi ngeen jël ma ngeen jël ma seede yéen yéenay sama seede bi ma génnee kaso ba léegi un an ci tey samay téléphone samay téléphone ñeenti téléphone yoo xamante ni ci jamono boobu bi may ñëw moom Sénégal bu ci nekk jar na presque quatre cent mille wala cinq cent mille état bu Sénégal ak justice bu Sénégal ñi ngi téye sama téléphone ba léegi yéen may jël témoin yéen a may jël témoin tey nag xam nga bisu dëgg la moo tax damay wax ak yéen ci dëgg dinaa wax ba mu jeex xam nga wax ji am fu mu tegu ko parce que xam ngeen dëgg rek ay dëgg mais kenn gënuma ñàkk kersa yéen laay jël témoin yéen sénégalais yi yéen ñi nga xamante ni yéen a may seetaan posté leen ko delloo leen téléphone Assane Diouf yi parce que xoolal yéen a may jël témoin de te man billaahi ku mën a xeex laa parce que ragaluma dee xoolal ki ñemewul xeex mooy kii xool fu baaraamam di damme wala loxom dagg wala bëtam tuuru wala ñu damm ay tànkam wala ñu jam ko paaka dee laa ragalul bopp xam nga dee moom mooy mooy mooy téere bi ragaluma ko nu mu ñëwee baax na parce que heure boobu la ko yàlla tudd moo tax ragaluma ko barki sëñ Bamba ragaluma ko nañu ma jox samay téléphone yéen laay jël ay seede yéen sénégalais yi yéen laay jël ay seede barke Serigne Fallou sama xeex lu jeex parce que tant jeexul xeex mënul jeex tant que jeexul rek xeex mënul jeex loolu laay dund loolu laay dund génn leen ngeen xeex li nga xamante ni ñun ñoo ko moom muy suñu alal te ñu bàyyi xeexante bi toog ci internet bi xoolal di saagante ci seen biir may ngeen Macky Sall ndam bu yàgg yéen yéen parce que man du du leen ko defal wut ngeen ko mayuma leen ko duma leen ko defal parce dafa amoon ku tax ñuy saaga xoolal nañu dellu jëflante kooku man noonu laay jëflante noonu laay jëflante ba pare delluwaat delluwaat ci ñi ma àndal ñi ma àndal muy waa dëggal suñu bopp parce que tur boobu ñëwul par hasard parce que ñi fa des toog fa tey mooy ñi nga xamante ni dëgg moo leen ci dugaloon ñu continuer ba tey jii di dëggal seen bopp tur bi du hasard moo taxoon ma toog ne dëggal suñu bopp parce que ñu ci bari dëgguwuñu dëgguwuñu dañuy wax rek te man lépp ci dëgg gi rek laa ko tegoon ci dëgg gi rek laa ko tegoon lépp nag parce que fii mooy senegal dafa am lu tax ñuy xeex dafa lu tax ñuy xeex nañu dëggu ba pare nañu dëggu ba pare li ñuy wax mu nekk dëgg ci ñun mais foqati alalu jàmbur ba pare ne danga bëgg a jubbanti Sénégal mënul nekk li tax ngay toog di dal ci kaw Macky Sall bu nekkee ci yow yow toogal ci ruq bi rek noppi toogal ci ruq bi rek noppi te ñi may waxal ñëpp xam nañ seen bopp ñi may waxal ñëpp xam nañ seen bopp ñëpp a xam seen bopp nañu liggéey pour Sénégal pas paa pour suñu bopp pas pour suñu bopp pour lan xam nga pour pour pour pour pour wut tur loolu moo leen ci dugaloon ah pour wut tur toog di wax li nga xamoo ci dara xam nga gëstuwuloo mayloo nit ñi jàmm ah xam nga tànqal nit ñi toog ci télé yi débat débat débat débat débat xam nga li ma te nit yiy toog di débat ñoom ñooy invitante añ ñooy demandoo sali ñooy demandoo île de Saloum ñooy demandoo fépp ah, ñoom ñooñu xolal ngeen dégg ci télé rajo bi xolal ñoom ñooy demandoo ay ngénte ay xew ay dëj ay lépp gis ngeen ko démb rek bërki démb xaw ma ci affaire Ousmane Tanor ay semblant la lépp ay slogan la barki sëñ Bamba révolution révolution li leen Assane Diouf waxoon révolution xolal xeex xeex te xeex bi xolal danga koy waajal man duma dem ci mbedd mi ah di di di dem ci mbedd mi di marsaka ñàkk fayda tànqal sénégalais yi ci dëkk boo xamante ni économie bi dafa am problème économie bi dafa am problème xam nga ñu am ay société société yu dul jeex yoo xamante ni ah ay société ah yu dul jeex yoo xamante ni ñii ñi ngi ja ñi ngi dàq CDE CDE CDE quatre mille employés xam nga bërki Dembo Njaay la dàq deux cent personnes deux cent sénégalais semeur dolli ci yeneen xolal <laughs> yeneen cinquante mille semeur yi Macky Sall di créer xolal chaque jour chaque jour chaque jour kon am ngeen jot toog di saagante man awma jot boobu awma jot boobu moo tax chaque jour ma yeewoo maa ngi ci bayaal bi munoon naa ko def comme ñi ko ñëpp di defee munoon naa toog xolal di costume comme ñëpp ah victimisé wu xam nga li ma la wax soxo soxo parce que lépp jàng la ah lépp jàng la ba pare bu leen fàtte ne man toog naa ci banc yi de toog naa ci banc yi toog naa ci banc yi ba pare génn naa réew mi tamit bu leen fàtte loolu moo tax bu ñu toogee nekk ci nekk ci dëgg gi nañu nekk ci dëgg gi rek bañ ko wàcc bañ ko wàcc xam nga bàyyi jayante bi loolu moo yàq Sénégal te Sénégal gi nga xamante ni moom la ñu nekk tey am yenn problème yi xolal bu ñuy wax ay Pape Alé bu mandie xam nga yooyu yàpp ñu la yàpp ñu yàpp ñu kese Sénégal gi ñu war a waxtaane mooy Sénégal gi nga xamante ni tey xolal dëkk bi dañu am ñi ngi am problème mu courant ñi ngi am problème mu ndox Macky Sall même lampadaire yi lampadaire lampe solaire yi xam nga ñan ñoo koy monter Sénégal Eiffage société française Eiffage suñu Eiffage fépp Eiffage Eiffage ci boppam moom mooy monter tey même suñuy lamp solaire di ci jël ay milliards te kenn waxul xeex leen loolu benn ana terre bi nga xamante ni juin deux mille dix huit xaw ma deux mille dix neuf non juin deux mille dix huit waaw la ñu inauguré woon terre ne leen fii un mois mu daw terre bi ba léegi fayuñu ko ah fayuñu ko presque mille cinq cent mille sept cent milliards. yoo xamante ni xoolal dinañ ci dolliwaat yeneen sept cent milliards pour ñun ñu am terre même pas soixante dix kilomètres eh Allah <laughs> loolu la ñuy dund ñun dégg nga ñu jóge ci loolu ah passé terre Caaroy Yëmbal Jàmmagën Jaksaaw ba Tëngéej ba jam ñaajo nit ñi dañ leen a tëj ci kaso ndax ay miir pour Eiffage ak pour français yi teer toroxal sénégalais yi dundal nasaraan yi ngeen toog rek di saagante loolu jubbantiwul Sénégal nëw waxleen ci wax ji liñ doon xeex démb ñu jógewaat ci loolu ñaata pont la Macky Sall jox yeneen société étranger yi ñu war ko defaral Sénégal bi nga xamante ni xoolal yee CDE mi ngi dàq bërki démb boo njaay deux cent personnes te xam ngeen ne boo moytuwul yeneen trois mille yi dañ leen di dàq loolu la Sénégal di dund loolu la Sénégal di dund léegi nag ñu dellu si nag wax ci dëggal suñu bopp dëggal suñu bopp dafa am nu muy doxe dafa am nu muy doxee parce que mooy nga dëggu nga nekk nit yàlla may la xel ngay xalaat te xalaat bi ngay xalaat duy doon yow kese waaw dangay jël askan bi yëpp boole leen ci sa biir bopp comme ni ma koy defee man chaque jour groupe yi group yi ah, ñi génn ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale ok parce que dëggal suñu bopp la ñu wax ñun woowuñu kenn dañu wax ne ñëw leen ñu dëggal suñu bopp liggéey yi nga xamante ni moom la ñuy liggéey liggéey yi nga xamante ni moom la ñuy liggéey ñoo ngi koy liggéey pour askan bi ànd ak ay xale lu nekk nag ñu ngi koy dégg lu nekk rek ñu ngi koy dégg mais na ku nekk rek def li nga xamante ni xolal mooy li nga war a def te ku nekk jàpp sa bopp maandu xam nga def li nga war a def ñun ñoo ngi def li ñu war a def ñoo ngi koy defan ah. mooy fexe ba état bépp bayaal bu nekkati suñu quartier yi duñ ci teg dara ba di ko jaay wala ñu koy maye ñun ñu defaral ko suñu bopp pour jàngal leen ne xoolal ñun tamit mën nañu defaral suñu bopp te jeunesse sénégalais bi man foofu laa leen di woo foofu rek laa leen di woo xoolal ngeen ñëw ñu àndaat ñun ñëpp xoolal ku ci nekk quartier bi nga nekk xoolal nga génn rek nga dëggal sa bopp nga dëggal sa bopp ñu defar suñu Sénégal ñu defar suñu Sénégal leneen li nga xamante ni xam nga moo ci ëpp importance mooy jeunes yi jeunes yi étudiants ñi nekk collège xam nga xale yu ndaw yi tout le monde mbalit ngir yàlla bàyyi leen sànni mbalit man bàyyi leen sànni mbalit dafa yomb xolol yaa ngi xëy di jàngi yaa ngi sa saak boo jëndee lekk mbuus lay nekk wala këyitu soleil wala dara xoolal def ko sa biir saak sax ba duggaat sa kër Amérique noonu lañ ko defaree ba mu set parce que li ngay sànni ci mbedd mi xoolal mooy ñëw tilimal mbedd mi yépp mooy ñëw tilimal mbedd bi yépp te loolu mën nga ko def ci sa saak ba duggaat sa kër nga sànni ko ci sa poubelle ba pare ngeen bàyyi xel ci xale yi parce que xolal feebar bi am siin nii ah salte kese la salte rek virus foo ko dégg ci ay doomu aadama rek salte la lu mooy laal loo xamante ni dafa salte pour yow loo xam ne sa yaram bugg ko xama li ma lax dalay rey te loolu mi ngi fépp ah mi ngi fépp ci àdduna bi moo indi woon Ebola moo indi woon moo indi affaire bi tey xam nga mën na indi leneen lépp mi ngi ci set lépp mi ngi ci set barke Serigne Bamba taril saar bi waxal lii patati pata loolu yëpp zéro set set wecc parce que xoolal balaa nga tari saar bi du dañ la sant nga jàpp ah, nga set ok kon set ba pare setal ci lépp nag ci lépp mais bu fekkee setuloo yee jàngoro bu ñëw rek dal ci sa kaw Sénégal gu jëm kanam Sénégal gi ñu war a waxtaane xolal te duñ ci booloo xuloo ak xeex xam nga du nekk ay saagante du nekk ay tamante dëmm Sénégal googu laay xeexal comme ni ma leen ko waxee dëggal suñu bopp suñu première action yàlla dafa am lu mu ci defal mooy xam nga ñu dugg ci école ci jàkka la ñu commencé xam nga ci mbedd mi ci kër yu tilim yi xam nga ba dugg ci biir école bi biñ duggee ci biir école bi école bi jox ñu beneen image ñun ci liggéey boobu la ñu nekk kuñ ci fekk si loolu mooy dëggal suñu bopp mais nekkuñ ci mbedd mi di mars dajalewuñu ay nit pour dem mars dajalewuñu ay nit pour dem di xeexi parce que xam nañu heure xeex bi heure bi bu jotee Macky Sall tey la ko dese quatre ans quatre ans dee leen wàññi xolal dee leen ko wàññi bu subaa xolal wàññi leen ne leen trois ans onze mois ak ay fan léegi mu jeexal léegi nag xeex bi lenn kese la fexe leen ba moom ci boppam bu mu ñu wax sax lu jëm ci troisième te fexe leen tamit balaa ñuy egg ci loolu foofu dafa sori balaa ñuy egg ci loolu nañu fexe ba li nga xamante ni mooy xeex bi dëgg mooy xeex bi dëgg mooy suñuy élection muy tegu ci yoon ba pare xolal li ko fi dese bu mu fi signé ci benn décret amatul droit signé dara dara ay maire nangam nangam xolal yéen lebu ndakaaru yi <laughs> onze billahi mina seytaane rajim te ndakaaru sax léegi lébu yi si rek ñu ko yéen lebu yu bu ngeen jógee xoolal séeréer si pël fuuta yi dinañ leen fekk si jàppale leen séeréer si nekk ci mbeddu ndakaaru yi dinañ jóg jàppale leen xoolal joolaa yeeg ñëpp jóg jàppale leen Macky Sall bu mu signé benn décret di wax naan day fal maire u Dakar parce que ba tey benn maire moo fi nekk mu falsifié ay këyit mu jiiñ ko sàcc mu tam ko dëmm mu wax lu ko neex ñu changé maire ji bind ay décret xoolal Khalifa Sall mooy suñu maireu Dakar ba léegi parce que ñëpp xam nañ ne liñ ko tegoon yëpp dara du ci dëgg lan moo tax ñuy bàyyi di tëb affaire yi bu ñu waree xeex dara ñu koy tëb tëb nañ ko ci Karim Wade tëb ko ci Khalifa tëb ko ci Assane Diouf Barthélemy keneen noonu keneen noonu keneen noonu keneen noonu loolu ngeen di bañ booy bañ dara da nga koy bañ ba ba ngay dee bu ko defee xoolal sa bañ boobu ngay bañ am njariñ mais bañ loo xam ne doo ci mës a am ndam ñaari fan ñett nga jël ko teg ko fële xam nga wut beneen slogan créé waat beneen tur nekkaat ci leneen wut say weccet wala nga wut sa buzz xam nga ñu amee la ci journal yeeg télé rajo yi xam nga nga defe ne yaa ci nekk loolu defarul Sénégal nañu xeex pour Sénégal nañu xeex pour Sénégal loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg te ñun dëggal suñu bopp la wax quatre ans la ñu waaj a deseel quatre ans Macky <laughs> man la Assane Diouf bul mës a wax troisième bul mës a wax troisième boo ko waxee rek weddi sa bopp barki sëñ bamb te man julit la yàlla may na ma xolal lu mu bon bon tuuti ci xolu yërmande te xolal magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko moo tax ma lay jox avertissement léegi parce que xam naa ne yàlla may na la xaala xalaat ngay xalaat mais xolal bii pexe du jàll barke Mohammed du jàll parce que ñoo ngi fi ñoo ngi fi la ñu xeexoon ci papa waat de ba déjjati ko moom muy sabaay ëpp la bopp ëpp la xam-xam def lépp ci yow def lépp ci yow barke muhammadu rasulullahi xoolal lu ko ëpp moo fi ne bul naagu de bul naagu bul naagu jëndal ay char de combat jëndal ay voiture de guerre jëndal loo bëgg a jënd xoolal ñi la koy jaay ay doomu aadama lañu ña ko defar ay doomu aadama lañu boo ñëwee xoolal ñi ngay jàmmaar lool tamit ay doomu aadama lañu te xoolal loolu da koy xool da koy chargé ah. ay doomu aadamaa koy chargé ah. yee ñun tamit ay doomu aadama la ñoo ngi fii ñoo ngi fii Sénégal bul naagu billahi wallahi doo fi toog troisième mandat no no no no no I'm telling yu right now léegi laa la ko yox léegi laa la ko yox léegi laa la koy wax sama gars yi comme affaire yi dafa changé xam nga lépp day changé parce que xam nga ci école bi ñu nekk di liggéey dañ ñu dañ ñu ay xale dañ booleek ay xale te xale yooyu ñu ñu booleel ñu nekk ci école bi xam nga ay tuutànk lañ te ñun ay baay faal lañ bu dëgg gi taxawee dañuy wax dëgg gi mais am na foo xamante ni xam nga dootuñu may xale yi ñu koy seetaan di wax tonton Assane Diouf lii moo tax du ngeen di du saaga moom xam nga dañ koy gën di dañ koy gën di puusale quoi parce que dafa am neneen nu ñu war a doxee bu fekkee ne da nga ñëw dugg ci école boo xamante ni dafa am mille cinquante élèves ah ñu def la président parent parent d'élèves yi président parent d'élèves yi ah ba pare xam nga ne la du ñu dem sax élection loolu mooy respecté nañ la kon il faut nga am xam nga benn côté boo xamante ni ak benn partie boo xamante ni da nga koy respecté parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañ dégg na ah? mais nag duñu mës a wàcc combat bi duñu mës a bàyyi xeex duñu mës a bàyyi saaga tamit dama koy leeral de parce que tant que tooñ jeexul xeex du jeex te xoolal kurpañ yi ak tey ma dëgg tey ma ñàpp ñoo ànd jeex na tàkk te ngóor sii ñuy jëflanteel xoolal yee comme buy dawal léegi ak fu muy dugg armée lay àndal ah fu muy dem armée lay àndal yee ñun tamit nañu préparer suñu bopp xoolal xam ne xoolal armée boobu ay doomu sénégalais lañu ñun ay doomu sénégalais lañu te ñun ak ñoom waa armée bi ñoo dëkk ñun ak waa police ñoo dëkk ñun ak waa gendarmerie ñoo dëkk yéen waa gendarmerie message la pour yéen yéen waa police message la pour yéen ak benn corps administration bu nekk biir Sénégal xolol loolu message la pour yow yeewu leen yeewu leen parce que dañu da ngeen a échec da ngeen a échec ci 23 juin 23 juin du ndam bu 23 juin nekkoon ndam kon tey jii Sénégal xoolal xoolal dinañ añ reer njogonal njogonalaat xoolal ba pare dóor boolu dof tëdd nelaw mais tey jii Sénégal xoolal añ bi sax day dëgër waxuma laa nag reer ok ak koo mënti doon nag ak koo mënti doon am na looy sóor yaa ngi dégg li ma la kon yeewu leen ñu delluwaat ci xeex boobu débat bi dafa sori dafa sori léegi sama message bi nga xamante ni tey moom moom laay jeexale waa mais Sénégal doomeram du saaga de doomeram du saaga moo tax may laaj ana doomeram yi toogoon yi toogoon dajaloo ñëw sama kër ñëw sama kër ne Assane Diouf dafa saaga suñu sëriñ yéen doomeram yooyu bi ngeen koy def pourtant seen sëriñ yabalu leen seen sëriñ yabalu leen yéen doomeraam yooyu bi ngeen koy def pourtant xalifa général waxul woon de waxul woon de tey yéen doomeram yooyu ngeen di woote njàmbaar di tal-tallu ku nekk génn Assane Diouf yee du murit du lii nangam-nangam soo xam naa Aïda Diallo moom mooy murit ayda Diallo mooy murit ah Aïda Diallo mooy murit ah Aïda Diallo bi Seex Muntaxa Basiiru Mbàkke toog ne yamal fii mu continuer di def li muy def ngeen ciy teg seen bët <laughs> ey xam naa li mu woddoo la kon li mu woddoo la ah li mu woddoo la moom ngeen soxla ah doomeraam yi doomeraam yi tey le 24 février un an bi ma génnee kaso ak léegi yéen doomeram yi di waat ci Serigne Touba yee Assane Diouf buñ ko jàppee Assane Diouf lii Assane Diouf amul garde corps de amul garde corps adduna bi yëpp mën nañ koo seede ay nu man dëkk ci bayal bi laay nekk guddeeg bëccëg awma garde corps ana ngeen doomeram yi ay Aïda Diallo xoolal sëñ Muntaxa moom moo toog ne kii na yem fii fan ngeen nekk muy jël yoonu Serigne Touba bi di ko booleek ay Saint-Valentin benn caga bu xeesal ba maara day taali xeesal xeesal xeesal xeesal laa wax sëriñ Abdoulahat mbake moo tere woon xeesal Touba magu sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw ñëw xoolal tekki tànkam xoolal tey jigéen toog xeesal ba mel ni mu war a mel keroog bi ma toogee Amérique di xorom waaye bu leen ma tax a saaga waaye di xorom ma toog Amérique di xorom mu wàcc Chicago teg greffage am xam nga di wax di wax ey ñun am nañu respee ah. am nañu respect ba pare gëm nañu Serigne Touba xam nañu kan mooy Serigne Saliou ok xam nañu kan mooy Serigne saaliw moo tax ñu taxawoon ci dëgg gi moo taxoon ñu wax ci indiwaat leen seen xel mais nag manipulation yi bari na trois ans ku nekk di fen ku nekk di wax Assane Diouf lii moo tax ma leen di postel rek lu waay waxoon postel naa la ay Assane Diouf dafa dem seeti docteur dafa sida manipulation fen 2017 parce que boobu yaa ngi wër buzz ay Assane Diouf laay xeexal xam nga moom nangam ki nangam xolal créer say association say mouvement fen yéen ak maki Sall yam ay Assane Diouf laay defal lii moom laay duggal fii moom laay génnal fii fen come on brother ba may xeex man xoolal li ma doon xeex ba tey jii moo continuer di nekk dëgg li doon xeex ba léegi nii moo continuer di nekk dëgg yéen dooméram yi du ngeen génn wax wax ci ay Aida Diallo du ngeen génn du ay taalibe ngeen da ngeen a mën a fëgg buntu kër jaambur yi ay duulkat yu toog ci ay tele ay soxna diw ay sëriñ diw ay sëriñ nangam te bu ñu génnee xolal ci caga ji lañuy mujj xam nga soxna diw ak soxna nangam xeesal ba mel ne ordu zawel seen yaram yi ba mel ne lu kenn mënta wax hey respecté leen seen bopp meen balaa ngeen di ubbeeti seen làmmiñ ci baay faal xolal ngeen xam li ngeen di wax man dama judd ci murit man samay maam dañoo liggéey pour sëriñ Touba xoolal tooguñu rek yor seen làmmiñ pour sëriñ Touba tooguñu ci tele yi télé yi rajo yi di wut bës di gërëm ay doomu aadama suba ba ngoon toog ci télé bi sëñ diw yàlla na ko yàlla defal lii boo paree dem seeti sëñ diw xam nga soxna diw yàlla na ko yàlla may nangama boo paree dem seeti soxna diw yóbbaa xoolal mag yéen ay daje maag yéen ay daje ah mais barke mam Cheikh Ibrahima Fall li ma leen waxoon gëmu leen ko ah Baye Fall yaa ngi ñëw te Baye Fall yi xoolal dañoo yegg si ba teg seeni bagage billahi wallahi di xaar heure heure dong la ñuy xaaraan ah, heure heure bi bu jotee billahi wallahi di ngeen xam ne Baye Fall yi egsi nañ parce que xoolal Baye Fall Baye Fall dong lay doon te ñun du ñu bàyyi ilaa yow mi diini parce que mam Cheikh Ibrahima Fall musta bàyyi ok think about it xalaatal xalaatal man noonu laay doxee noonu laay doxee zéro ngistal zéro ngistal pour ñëpp lépp pour ñëpp yàlla pour ñëpp ah Assane Diouf pour ñëpp lépp pour ñëpp yee beraluma ci kenn lenn that's how I work my life moo tax xolal I don't give a fuck about what they say xalaatuma lu ñuy wax sama yoon nekku ci Beside that, I'm going <laughs> to talk to my lady. Malika, I love you, my love of life. I love you for life. And I be with you for life. And I thank you for life, Malika Ubaka. And I will this. We had a project going on in Senegal. And most the money, most the money who come to that project, is my wife money. from his people. That's why I say my wife money. From his people, the American people, okay? delloo si waat leen seen xel ok yaay speak English masada money we put in this project to build a nice a small park for the youngsters and picking Aynoman 3 is one of the best thing uh, somebody have to do to stop talking and get back to work. Get back to work. And I'm going to thank you, Malika. I'm going to thank your people in America. And I'm going to thank all my friends who put money on there. Hold Usman Tunkara. Yeah. nga ci gaynde nga jërëjëf Sali Diop Yaaxadi Fëtan Jaw Baabi Mouhamed Fadel Dieng Ousmane Sow Codou Diagne ah, Viviane Sophie ah, naka lañ koy waxee ah, Dame Ndaw dam Ndaw Gaynde Dame Seck Wësëm how to call it gaynde gi Ren Diop suñu gaynde gu jigéen gi reen parce que gis ngeen li fiy dox li fiy dox gis ngeen ko mere nañ ko tam nañ ko dëmm jiiñ nañ ko sàcc saaga nañ ko ay ndey moom ak sama yeneen nit ndax Assane Diouf te terewul ba léegi ma nga fa ba léegi ba léegi mi ngi fa ak lu mu mënti dégg xolal mi ngi fa ba léegi reen xolal ñun ndam lañuy xeex pour Sénégal xoolal da ngaa dëggal sa bopp moo tax xolal chaque jour yee dara du la jéggi loo xamante ni affaire dëggal sa bopp la dara du la jéggi mais muñal gën a gënal nga yokk nga muñ ba pare di jéggulu sa doom Boubacar di jéggulu sa yaay bi dégg ñu lay saaga di la wax ay affaire chaque jour ndax man ok di la ñaanal jàmm ba yàlla def ñu gisantewaat ci jàmm ba toog ci sa kanamu yaay xam nga bu boobaa ma wax li la boole woon ci xeex bi parce que lépp fi la ma fekk lépp fi la ma fekk Sali mënuma leen yéen samay jabar ngeen sali yaa xat you know and ngeen ganale seen gan euh, nu mu tuddati sax euh, Alima Alima welcome to United States ok liggéeyal pour Sénégal ah euh, di di remercier sama frère xam nga Ousmane saw du bàyyi jamais te ku ko jéem a bàyyiloo moom yaay bàyyi Ousmane du bàyyi ku ko jéem a bàyyiloo yaay bàyyi ok di gërëm euh, naka lañ koy waxee moodu Gaal Seen moodu dinaa la woo you my brother I love you for life kenn mënu ci dara man sama mbëggeel maak yow kenn mënu cee dara parce que da nga jël sa doom tuddee ko sama jabar Malika ne woon bu juddoo nekk góor ma tuddee ko Assane Diouf bu juddoo nekk jigéen ma tuddee ko jabaru Assane Diouf nga def loolu moo tax xoolal kóllëre googu mooy dox moo tax bi coow yi amee yenn affaires yi munuma toog di ja di laaj ko sali wala yaaxadi xam nga waxtaan nañu may leen bàyyi leen sama frère rek mu dox doxam yàlla xam nga dina ko wëlbati parce que noonu la fa war a demee xam nga di di di remercier ñëpp ba pare di remercier tamit ñi xeexoon pour Assane Diouf ñëpp ñi nga xamante ni xëy na ñenn ñi dañu fàtte ne Sénégal lañ doon xeexal jël affaire bi def ko personnel ba xam nga merci ay waa lu ma woo téléphone léegi li yéen ñëpp maa ngi leen di remercier xam nga di leen woo ngeen dellu siwaat xam nga ñu ànd xeex-xeex bi ci yoon xam nga euh, di di di remercier ki nga xamante ni mën naa wax ne moom mooy sama yaay mooy sama yaay muy sama grande sœur barki sëñ Fallou parce que xam nga nit dafa am foo koy féete ah dafa am foo koy féete après boo ko féetee foofu xam nga après day taxaw mel ne moom moo la jur te dama am sama grande sœur Ndey faatu Diouf depuis avant may génne Sénégal lii mën naa ko bind livre barki sëñ Bamba parce que nit lu la nit defal ci lu baax xam nga ko avant may génn Sénégal muy neex muy naqari xoolal fu ma mënti nekk dina ma fa fekk ba tey jii ba bi ma ñëwee Sénégal xoolal ak ay wax ay coow ay réeroo terewul chaque fois xoolal dina wut yoonam ba ñëw xam nga li nga xamante ni mooy dëgg mu teg ko ci taabal ji te du du ko def du ko def ay xuloo du ko def ay xeex du ko def xam nga xam naa ne dina am lu ko naqari dina am lu ko naqari xam nga ma bëgg that's my sister yeah yéen àdduna bi kooku sama mag la I love her yeah sama mag la mooy sama yaay barki sëñ Touba moom laa def muy sama yaay parce que xam nga njureel cofeel la mooy ki lay muñal mën la muñal lépp mën la muñal lépp yeah loolu mooy njureel xam nga te loolu lay xolal maa ngi ci bayaal bi kenn duma fa fekk mais xolal day bàyyi day day sonn day liggéey day def lépp xolal mais bu toggee chaque dimanche bi muy yendu këram nga xam ne man kenn du ma wax loxoom xam nga boo yi ma nekkal dama leen koy wax xam nga kenn du ma wax loxoom bu ñëwee rek dama leen wax boolu Ndey Juuf moom ah yee xolal ñu nekkee xale la xam nga pour moom mu togg mu togg teg ko ci yoon yee da loolu kenn mënu ci dara da koy teg ci yoon parce que da koy jaral mu ubbi loolu avant muy am jëkkër la dama ko fekkee dañu dund ci kër gi xam li ma wax muy jël weccatam di ko dolliwaat ci waañ di ko dolli ci baraada di ko dolli ci yeneen xama kooku xam nga yàlla na ko yàlla defal jàmm I love you my sister and you know I love all my people yéen ñëpp yéen ñëpp I love everybody yéen ñëpp bàyyiwuma kenn mais kooku sama mag la mooy sama yaay xam nga li ma la wax jëkkëram tamit même chose xam nga yee te du def lu dul xam nga yee di kontaan xam nga di leen bëggee yéen ñëpp yéen ñëpp yéen kóllëre Assane Diouf yi xam nga yéen xam nga yéen ñi nga xamante ni yee dafa am lu leen merloo xoolal yee bu fekkee ne man la du man xam nga yee maa ngi jéggulu yàlla nañu yàlla defal jàmm xama defal ko Sénégal ba pare ñu génn xeex pour Sénégal xam naa mënu wax lépp dama gëj ci caméra bi mais maa ngi woo ñëpp fi mu toll nii ñoo ngi ci presque huit cent huit cent huit cent treize doomu aadama huit cent non huit cent soixante presque neuf cent doomu aadama neuf cent doomu aadama yéen neuf cent doomu aadama yooyu di seetaan man la Assane Diouf dañu commencé benn jardin fii ci Aynoumane ci école bi dañu commencé école bi pour rénover ko xam nga defaraat ko équiper waat ko xam nga delloo xale yi ci cofeelu njàng. xam nga ñu am fu ñu toog ñu sawar a dem école bu ñu demee am ker gu ñu toog maire yi fay nekk di jaay am ker gu ñu toog xam nga professeurs yi am ker gu ñu toog parce que professeurs yi fa nekk ay jàmbaar lañu ay gaynde lañu xamali ma la dama dama damay ñëw ci école bi chaque jour mais dama leen di yërëm parce que fi mu toll nii xam naa lan la professeur di jonkante di jànkonteel parce que xaley Sénégal xaley Sénégal ngir yàlla man la Assane Diouf président parent d'élève bu école 12 ma jël titre bi ah, man kenn du ma sant li ma war a def li ma war a def kenn duma ko sant ma jël titre bi def ko président parent d'élèves yi nekk ci école Sénégal yëpp ma bëgg yéen xale yi ngir yàlla yéen a tax tey ma toog ci caméra bi ba wax ji jeex buggumaa yëkkati sax saaga ma leen di ñaan yéen xale yi bu leen sànneeti mbalit dégg ngeen ko def seen saak da ko boxam def ko fenn seen saak ba egg ci kër ga boo eggee nga jël ko sànni parce que ni ngay jëlee mburu mi laxas ko ba mu rafet teddal ko ah teddal ko dugal ko sa saak dem ak moom école noonu laa bëggee nga teddal mbalit mi tamit ak mbedd mi xoolal jël mbalit mi defaat ko sa saak boo eggee ba ci kër ga nga sànni ko wala boo gisee mbalit nga sànni ko ngir yàlla dégg na ah yéen ñi dëkk pikin koñ bi ma dëkk gis ngeen liggéey bi ñuy liggéey pour ñëpp pour ñëpp affaire bi fulla la affaire bi dëggal suñu bopp la man duma dem di woowi kenn mais ku ñëw fekk ñu ci terrain bi dëggal sa bopp taxaw pour liggéey bi comme ni ma ko waxee léegi ñu ànd rek liggéey kon yéen huit cent personnes yi affaire yi dafa am comme fu mu commencé woon ku ci nekk da nga amoon fullay yëkkati sa cent dollars ñi ñàkk seeni mille dollars ñi ñàkk seen million pour assan Diouf ñi xeex ku nekk rey sa bopp pour assan Diouf am liberté léegi man dama bëgg jeunesse bu Sénégal am liberté ñu bul jël xeex bi def ko xeexu Sénégal xoolal ku nekk bu jëlee xoolal un dollar un dollar un un wala benn euro huit cent personnes calculer leen ñaata la xoolal mën nañoo tegal sax ay banc public te xam naa ne mën ngeen lu ko ëpp tey mooy doon sama première fois ma toog jàkkaarloog yéen ñaan leen pour ñu xeex pour loolu pour defar école u yi pour ñu dajale loolu fépp fu waay nekk xoolal soit nga nekk Amérique salee nga fa soit nga nekk France Reine Diop mi ngi fa Viviane Sophie mi ngi fa nit ku nekk xoolal ki nga mën a jëflanteel nga jëflanteek moom ñu jàpp ci ni ñuy def ba defar suñu Sénégal ñu defar Sénégal te bañ a jël affaire yi def ko personnel man ci loolu laay dox parce que mënoon naa toog sama kër ñi may jël seen ñiy jël seen xaalis yëpp amu ci kenn ku jëlagum sa xaalis na ma Assane dama jën ciment pour defal école bi ah wala dama jënd ciment pour def lii ma maa la may lii xam nga li ma la sa maa la dimbalee lii sa waay xolal ma xam ne xolal yéen ñooñu ku ci nekk am nga ay doom yi nekk ci école yi xam nga école moom mooy defar am réew parce que éducation bu amul ci am réew réew moomu demul fenn moo tax ma dem ci école bi xam nga pour ñu soqaliwaat Sénégal parce bu ñu éduquer suñu doom yi ñun li ñu rëcc ba tax ñuy mer mënuñu ci dara xëy na yàlla def ko ci suñu doom yi ñu xeexal ñu ko balaa ñoo dee comprendre nga xam nga loolu moo waral xam nga ma bëggoon ñëpp muy reen muy sali muy Viviane bu dee Sénégal la Pape Diouf mi ngi fi comme toujours dara changé wul xam nga li ma la ah, boo nekkee Tënge Ibou Touré xam nga li ma la Baye bi yaa ngi dégg ah foo mënti nekk foo mënti nekk ci àdduna bi ah yee boo amee looy jox nit ñooñu jox leen ko xam nga soxlawul jotuma Assane Diouf téléphone wala noo xam nga su jotul Assane Diouf téléphone parce que Sénégal la xam nga jotal Sénégal téléphone rek te boo jotee ci ñooñu rek jot nga ci Sénégal jot nga ci sénégalais xam nga ñu ànd defar suñu Sénégal xam nga di jeexale di jeexale li ma leen wax sànq ànd booloo nekkaat benn delluwaat ci xeex bi xam nga woo naa ci ñëpp woo naa ci ñëpp la baronne sama sister Georgie François Hélène xam nga Euh, euh, ay Pape Ndiaye xuuru Macky euh, tout le monde ñëpp maam Thierno Ndiaye sama grand frère xam nga tout le monde tout le monde woo naa ñëpp ah woo naa ñëpp parce que mënu ma lim ñëpp benn dànk benn kurpañ ñu mën a am ndam ci li nga xamante ni moo ñu taxoon na jóg moo tax ma toog rek ne tekk tànkam lu leen xam nga booloowaat booloowaat Astou Diouf Codou Diagne tout le monde on est des frères et sœurs pour notre pays le Sénégal Sénégal kese ok Sénégal kese buñ ko def Sénégal rek parce que heure bu ñu ko defee Sénégal rek ku nekk da ngay xalaat sa bopp rek moo tax ñuy am problème chaque jour na ñu génne Sénégal rek bi teg Sénégal kese jiital Sénégal kese xam nga li ma la suukar ko xam li ma wax bu ñu amee lem xëpp ci nekk ci jàmm xam nga bu ko defee ñu mën a avancé mais mu mënuñoo ñun xam nga ku nekk lonk ba pare bëgg a lonkar ci Macky Sall mënul nekk parce que boo lonkoo mënoo lonku mënoo fexe ba lonki ku lonku comprendre nga li ma wax Macky Sall dafa lonku ay mbokkam lonku ba tey jii biir Sénégal suñu mbokk alpulaar yi muy tukkulóor yi boo leen nee nedd ko bandum ñu ne déedéet du ci makki Sall de waaw ñoom sax dañuy bañ nedd ko bàndum léegi ndax makki sàll bon gi mu bon ci Sénégal kon yeewu leen xam nga ñu jubbantiwaat suñu réew ci yoon ba pare yeewu tamit yéen jeunesse Sénégal xam ne waa ji nañ ko bàyyee quatre ans comme bàyyi nañu benn at mu jàll nañu bàyyi ñeent yi jàll mais Macky <laughs> bul mës a wax troisième bul mësa a wax troisième bis boo ko waxee rek di nga xam ne yàlla julli rek la santaane sama gars yi ñu tàggatoo parce que fi mu toll nii guddi na fii ci Sénégal waxtaan bi neex na xam naa fii ay fan rek dinañ dellu siwaat di gërëm sama rakk yi ma àndal dëggal suñu bopp góor ak jigéen jànq ji mënumaa lim seen tur yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax ci liggéey bi ngeen di xëy si di ko liggéey chaque jour te tàyyiwu leen ci sama naqari deret sama compliqué lépp xam nga terewul ngeen ñëw rek xam nga tonton Assane loo bëgg ñu def tonton Assane lii xam nga sama sama sama doom Mbaye Diop sama sama frère sax laay wax xam nga parce que moom ñooy nekk chaque jour xama damay dindi doom bi teg fële xam nga ñu nekk ay xarit nekk benn xam nga euh, euh, am Aydara Cheikh Diouf xam nga ñi ciy jàpp sama rakk bi nga xamante ni chaque fois mu moom xam nga dafa am ay liggéey mais day dem jënd war wargaam ak suukar indi sàmba Diouf xam nga li ma wax yeneen jeunes yi xam nga ah, ah, di gërëm ñëpp ak suñu yaay yi ak suñu sœurs yi ak yaayu xale yi bàyyi seen doom yi tamit ñuy ñëw chaque jour di nekk ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm di leen remercier di remercier waa Sénégal yëpp xam nga di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yéen bay Fall wax leen ci Aïda Diallo balaa Assane Diouf di génnati ak xorom si parce que su ma génnee ak xorom si wallahi billahi dina gën a dina xam ne ñun ba ñuy nekk cantaakun ndax Serigne Saliou boobu moom xamul luy cantaakun parce que bërki dém boo njaay la toog ci leget gi xam nga ñi ko fe ñi nekkoon këll gi avant leget gi na leen respecté na leen respecté respecté li ko xalifa général des mourides wax ba pare yéen yéen yéen yéen yéen yéen <laughs> Serigne Fallou Fall xanaa xamoo yàlla day àtte ba ngay génn di wax ci Assane Diouf di ma tëkku boobu xanaa da ngaa fàtte ne surtout maam Cheikh Ibrahima Fall nga maam Cheikh Ibrahima Fall musulal tëkku benn jaam ci kaw suuf Baye Fall du tëkkuwaate Baye Fall day respecté ñëpp Serigne Fallou Fall Moustapha Diakhaté bu leen tëkkooti Baay Faal moo waral tey xolal kii Baay Faal la mi ngi dox ci kaw suuf si mais soxna soo xamante ni tekkiwul dara tekkiwul dara Ordu Zawel boppam ba mel ni mu mel Aïda Diallo yow laay waxal barke sëriñ Fallou boo taxee Baay Faal yi jóg billaahi wallaahi wa taalaahi di daj lu mburu dul daj ci biir taal barke Mohammed parce que ñun Serigne Touba rek la ñuy dund avertissement la nag bu ñu dellu siwaatee barke sëñ Bamba say mbokk dinañ jóg di wuti xorom pour fayu te duñu gis xorom suy jaay parce que dina fekk xorom sépp ñu xëpp la ko yow dégg nga nekkal soxna dégg ndigal respecté waa kër Serigne Touba yi respecté leen ba pare lii yéen ñooñu yéen ñooñu doon jog ku nekk di tëkku di kërti kërti naan Assane Diouf li mu wax sëñ Bass Abdou Khadar la ku nekk ubbi sa làmmiñ ah. du ngeen génn nag du ngeen génn génn leen ne ku nekk génn wax parce que xoolal seede la yàlla bëggul kuy tooñ te da ngeen maa tooñ ma dem kaso ngeen nekk seeni kër di galayaabe ñi nekk ci tele yi di yalwaan ay ay ay doomeram bu mel ne Mamor Mbaay jàngoo dara xamoo lu alxuraan wax xamali ma la xamoo lu Sëriñ tuuba bind toog ci tele yi di woyaan dugg ci tànt yi ko weeru koor bu ne lu tax ñaari weeru koor yi lu tax dëggaloo sa bopp ñetti weeru koor yi nga ñëw sama buntu kër doomeram doomeram loolu moo lay wan ne gëmoo Serigne Touba te weer bu nekk fi nga doon ñëw premier jour koor di yalwaan di tagg waa kër gi lu nekk nga def ko pour lekk tey nga ñëw naan asan Diouf du Baye faa lala lala kàcc rek espèce waay donc doomeram doomeram comme Mamor Mbaye Sénégal rek ñu xeexal Sénégal bu ko defee Sénégal am jàmm ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm xam nga yàlla rawale ñu rawale suñum réew rawale suñuy njaboot xam nga ci set ak sell sellal suñuy xol xam li ma wax dimbali ñëpp te xolal dimbali ñëpp nag parce que réew mi ñu nekk wallahi billahi kuñ fii limal li nga am jaam nga jaam pire man Assane Diouf maa ko wax kuñ fii limal di la wax naan am nga li mën nga lii yaay lii jaam nga jaam nga jaam nga merci mon frère Khadim Gueye xama ma la am merci yéen waa Sénégal yëpp man la Assane Diouf xama li ma la am di leen ñaanal jàmm xama di ñaanal ñëpp jàmm xama di ko ñaanal ñi fi nekkoon démb di xeex xama di ko ñaanal Baye Fall yëpp xeex leen pour Sénégal Sénégal kese ba pare yéen ñi jógoon yor turu Assane ku nekk sol say dàll xam nga yor sa làmmiñ war sa bopp ba noo mënti def ak koo mënti doon nga làqatu ci ginnaaw caméra bi ak ñi nga xamante ni dañoo génn yor seen làmmiñ naan dañuy xeexal senegal te xoolal kuy xeexal Sénégal waneel sa kanam waneel sa kanam munoo xeexal Sénégal làqatu ci ginnaaw caméra bi góor ak jigéen laa ci yemale bàyyi leen seen affaire u naafeq yooyu alfiqa I love everybody tàggatoo tàggatoo tàggatoo du yàgg dara ñu jàkkaarloo waxtaanaat xam nga pour suñu Sénégal nañ koy defee saa su ne ah mais bu leen fàttee bu leen fàttee dëggal suñu bopp lépp lu waay mën Pape Diouf mi ngi Sénégal Pape juuf mi ngi Sénégal ah this is gonna be the first time dëggal suñu bopp taxaw pour raise money raise money dajale xaalis pour ñu taxawal suñu liggéey ñu góor góorlu ci loolu nekk ci jàmm nekkal Sénégal ci jàmm bu ko defee ñu mën a avancer I love everybody I love you Malika I love everybody thank you everybody and good night. Thank you.